Faye nag di parlementaire bu yeewi askan wi loole nag yooyu les kaddu la Ngouda Mboup mënta dékku ba jàpp ne rek daal pour raggub deram rek mhm. daana porter plainte ngir rek ñu dem ci yoon ngir setal ko d'accord donc day porter plainte pour diffamation euh, monsieur Fall ma la doon laaj nit ku ñu porter plainte pour diffamation lan moo ko ci mën a fekk ah, bu dee bu réew yi moom li ci ëpp euh, am na sanction yu sévère yoo xamante yoon mën na lu ko gàll mais li ci ëpp ki lay ki topp moom pour mhm. setal deram la ndax nit ki faw ñu arrêté ko wala mën nañ ko bañ a jàpp. loolu juge bi mooy apprécier parce que diffamation xam nga da nga def fausse bu fekkee da nga def fausse déclaration boo xam ne dafa acte porté atteinte honorabilité nit ki boobaa ci lay pour setal deram li ci ëpp moo tax mais juge bi ba tey condamnation mën na nekk amende. ok mën na nekk amende moo tax waaw parce que li ci ëpp loolu la mais nguudu nguudu mbuum ci ci rôle ma la nekk euh, jàpp na ni laal nañ honorabilité parce que Abba le député maire bi ko wax loolu. bi ñu koy wax loolu xëy na même bu amee yàgg na. li mu ci jublu peut-être mooy euh, yàq deram wala boole kook askan wi. kon day xool ba xam juge bi mooy apprécier ndax diffamation am na wala amul. Mm-hmm. est-ce que yàq a fausse information boo xamante ni day yàqal kii nga xamante ni mooy nguudam bu euh, léegi nag léegi loolu moom juge bi mooy apprécier. d'accord juge bi mooy apprécier da nga ci bëgg a sànni mhm. waaw waaw waaw parce que bon diffamation ni ñu ko définiré euh, waxuñu ne la déclaration soit fausse d' abord lan mooy diffamation sax la mooy mhm. imputation ou allégation qui vise à euh, remettre en cause l'honneur et à la considération de la personne. d'accord lu mel ni nga tam ni dëmm. bokkul ak diffusion de fausses nouvelles. d'accord donc kon ci biir diffamation li nga wax mën na doon dëkk mais am un caractère diffamatoire. kon Pape su ma la ne woon Pape Moussa tu es beau da rafet wax ji neexu la sax bu la neexee porte plainte pour diffamation. mais est-ce que loolu dafa porter sama honneur maintenant. yow boo jàppee ne wax mu la yàqal joxe benn exemple rek ci ku ma yab Ousseyn. waaw ñu ne ko Ousseyn yow mii dangaa biiral <laughs> mu tiit affaire yooyu dem porte ji plainte ma ne ko mais Ousseyn man si jabar laay wax mu kii euh, wan na la xam nga li ma wax dëgg la. Mhm. Mhm. mais moom ni ma ko waxee jàpp nañ beneen appréciation ci Ousseyn bu dul pourtant li ma wax dëgg la mais ni ma ko waxee moo tax ba xotti naa war maam d'accord donc loolu noonu day doon diffamation boo xoolee sax euh, Ngouda Mboup def na benn intervention mm-hmm. ci réseaux sociaux yi wax li nga xamante ne moom moo xew weddiwul Abba de mm-hmm. weddiwul Abba mais nee dina ko porter plainte effectivement parce que euh, Ngouda Mboup c'est un juriste un enseignant bu xam-xamam màcc ci droit constitutionnel ak droit public ñëpp xam ko ci réew mi donc tey jii nii bu ko euh, benn groupe parlementaire sakkoo xam-xamam def ak moom contrat. Mhm. mais et pourtant règlement intérieur assemblée nationale ci boppam moom moo ne député yi mën nañoo am assistant parlementaire di leen fay. kon léegi kon plainte bi ban ban sens la am finalement. non c'est-à-dire man dama jàpp ne déclaration am na sens kay. Mhm. parce que boo déggee nii Aba waxee dafa mel ni. Euh, guuda li muy wax parce que dañ koo fay moo tax muy wax alors que ce n'est pas du du du noonu la demee. d'accord moom bañ koy fay moom ma nga fa moom. parce que li leer ba leer mooy. xaalis bi lew na ko dafa liggéey ñu liggéey ci xam-xamam. ñu fay ko ci expertise am nekk un consultant. consultant boo xamante ne bu doon groupe parlementaire yeneen euh, organisme ñu ngi sàkku xam-xamam mais ba muy jàngal Ousmane Sonko daf ko fekkee ba muy jàng président Macky Sall daf ko fekkee ba muy am xam di ko kenn da koo fekkee abaa fekkeewu ko donc ci xam boobu noonu mu am ci contrat mais loolu rien de plus légal. moo tax may laajte kon lu ci jar porter plainte. puisque yow liggéey li da ngaa def liggéey ñu fay la. non doucement plainte bi plainte bi waxul ne waa ji li mu wax euh, du mais waa ji li mu doon jéem a insinuer ci wax ji. ah d'accord li muy insinuer ci wax ji day mel ni ngóor mi kat ah xanaa du dañ koo corrompre muy wax cest à wax di voilà voilà tout la quintessence or euh, Abba moom en tant que député membre du groupe parlementaire de xëy na bi ñuy signé loolu ma nga foofu. pour pourquoi mu bàyyi ba tey mu koy soog a wax. d'accord cest à wax jooju noonu. Mhm. dégâts collatéral la. Mhm. ci benn këral politique bu am diggante taxaw ak. Euh, Pastef loolu mooy la réalité. pour compléter rek. loolu laa doon wax te pareegu ma parce que foog mu am intention malveillante maanaam nit ki dafa la soxore. maanaam bi mu lay waxal loolu da ci jublu soxore la. ok diffamation ndax loolu yàgg naam parce que li nga wax dëgg la ni saa yi costume am rafet na wala am na li wala am na li loolu dëgg la kenn mënu ci dara. mais fekkee dafa am mauvaise foi bu am ci biir boo intention pour yàqale hmm. ki hmm. moo tax mën am juge bi sax du ko topp euh, ndax situation de fait la boo xamante ni juge bi moo koy apprécier mooy xool ba xam effectivement ndax lii porte na honorabilité wala dara wala parce que li mu wax dëgg la parce que amoon na fi ay abaa tey lu tax su lu ñëwul les secrétaires parlementaires yi ñu jëloon nga xam te les doctorants en droit ñoo ko doon liggéey loolu nga xam ne amatul sax normalement sax li nguur a def c'est à encourager parce que euh, da ngay nekk parlementaire doo xam loi doo xam projet de loi doo xam proposition de loi doo xam les procédures parlementaires. Mhm. donc kon loolu gëmuma ni ci objet bi même am na problème mais intention bi at li tax mu wax ko. at mu bàyyi ba heure bii di ko wax day mel ni du ko bëgg a yàqal. mais su ma la déggee ni nga définir diffamation diffamation kuñ koy toppee pour nga rëcc yombul de. ça dépend ci juge bi nag comme li wax situation. li ngay wax dëgg la. waaw mais li nga wax dafa xotti war ma nit ki. war ma nit ki c'est-à-dire euh, bi wala allégation bi day viser porter atteinte à l'honneur et la considération d'une personne. Okay. c'est-à-dire man jàpp naa ne. Euh, euh, Ngouda euh, weddiwul li li ko ni ko kii wax parce que dafa am ay contrat moom xam-xam ma may na ko loolu c'est un consultant. Mm-hmm. et je ne dirais national mais international. donc kon am na yeneen organisme yu am yooyu xeetu contrat ak moom boo jékki-jékkee waxee ko ni nit ñi reprendre ko ci réseau sociaux yi di di ko ci attaqué or li mu def sañ-sañ la te amul benn illégalité amul benn loi yoon bi bu mu xotti donc kon waaw juste question bi ma bi ma bëgg a kii mooy euh, qui doit prouver la diffamation c'est l'accusateur wala l'accusé très bien parce que ci kat fann boobu kii tuumalaate wala kii tuumal kan moo ci war a indi firnde waaw ci fànn boobu dafa bëri dafa bëri ay amalgame parce que ni ni ni ni plainte bi demee la mm-hmm. xam nga képp ku déposer plainte mm-hmm. yow yaa war a prouver l'existence de l'infraction d'accord même en matière civile on te dit de la preuve incombent donc yow mi porté plainte yow yaay prouver ndax diffamation am na. ok mais la plupart du temps boo xoolee bu ñu ne porté naa diw plainte pour diffamation rek dañ naan nit ki dama nga seetla sa bopp dafa mel ni day am renversement charge de la mm. preuve. Okay. alors que ce n'est pas le cas. ki ne yow da nga maa diffamé moom mooy prouver l'existence de la diffamation bu paree. yow nga tontu ne diffamation amul ñu xam ne infraction la boo xamante ne. Mm-hmm. prescription bi 6 mois la. d'accord six mois. six mois mais am na problème aussi parce que waa ji député la euh, Abba yaakaar naa député la aussi. Mhm. Euh, am na obstacle euh, am na question prise du service. non c'est une vidéo. waaw ah. flagrant délit c'est une vidéo. non mais xam nga procureur mais procureur sax mën na comme ni nga wax sànq. opportunité de poursuite. Mhm. mën nañu ko jox plainte bi mu ni. parce que xam nga c'est subordonné à une plainte parce mmh. que caractère personnel bi dafa laal nit ki procureur mënut a tëb lii rek dem poursuivre lu mel nii tey mmh. loolu limite la sax sànq ci li nga doon wax naan day jékki-jékki topp nit ki saa yi nag day am y a des types yoo xam ne en euh, am foog am te procureur mën na xool opportunité ni wax comme li nga xalaatee ni ah dëgg la ñoo koy fay mi ngi fay liggéey mu rappelé ko peut-être c'était moom pour moom information la rek bu teg tegu ci liberté de la de la liberté d'expression. d'accord mën na ko gisee noonu. d'accord Fatima léegi léegi bu bu mois yi jàllee nag balaa ñuy romb Paa Moussa prescription boobu 6 mois mm. prescription boobu. non fii fii fii fii cas amul prescription. beneen cas moo tax ma wax ko. waaw ah, ah. d'une manière générale moo taxoon ma koy laaj. waaw pour mu leeral lan mooy prescription. Mm. prescription bu amee mooy am na délai a boo xamante ni mënut a topp dafa doon topp bu dee crime a yàgg nag

Euh, tiis boobu mu la tegoon tooñ boobu mu la tooñoon da ngay dem mu dàmp la kon kon fi mu toll nii su ma neexee dem sàcc xaalisu Pape Moussa daw Gambie toog fa ñetti at ñëwaat fii Sénégal kenn du ma jàpp kenn du ma def dara ah, damay damay rëcc loolu loolu wax de prescription <laughs> bu ah, kon baax Pape bu yeboo nga surveiller say poste <laughs> Gambie da daa jege sax mais nag attention parce que prescription comme ni nga ko ni nga ko waxee am na loo xam da koy suspendre am na mhm. événement yoo xam ne bu ñëwee da koy commencer waat à zéro am yoo xamante ne comme waa ji immunité bu fekkee établir nu flagrant délit boobu ngay wax mhm. diggante bi mu nekk euh, député kenn du ko mën a topp. loolu kon prescription bi. mais mais mais mais. Euh, tawul xam nga tamit nekk député. immunité du impunité. nekk député du du la neex def de. nekk député du kenn mënu la poursuite ci àdduna. cas bii poursuite amul lenn luy def obstacle à la pour poursuite d'autant plus que. c'est une question de. flagrant léegi def immunité bi bi muy wax. jarul ko jarul immunité. Euh, article 51 règlement intérieur oh, 61 règlement intérieur repris par l'article 51 de la Constitution. Mm -hmm. Immunité, ça ne joue pas en matière de flagrant délit. Ça ne joue pas. y' a pas d'immunité en matière de flagrant délit lii émission la dafa ne fàng flagrant délit mooy loo xamante ne kenn du ko jeex. Mm-hmm. loxo maanaam wala ci poos l' individu euh, est poursuivi par la clameur publique et la clameur publique a été claire. Mm-hmm. bi mu defee vidéo bi presque la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. ñëpp di di nguuda nguuda nguuda. diiraan googu noonu moom moo levé l'immunité. d' accord ñëweel.